gëm yow sa journée bi ba tey nga ko jàpp. jëf noo ngi leen di gërëm bu baax di leen sant le président CNC mooy woote woon tey juróom benni promoteur yi nga xam ni ñoo régularisé woon grand combat ba dernier combat yàlla dogal ma bokk ci. Euh, léegi euh, pandémie bi moo taxan ma defoon point de presse man puusoon sama journée yàlla dogal na tey jël nañu datu euh, le 12 décembre fii ci arène nationale bu àndeek dogal yàlla incha allah. ci super gala bi nga xam ni moom laa tëggoon bu àndeek dogal yàlla. sa waaw gala bi xam nga dama ci def ñetti grand combat yu mag ak yeneen combat yu ndaw ndax grand combat bi mooy kéwél ak ki nga xam ni mooy ñaq jariñu combat bi ci topp mooy capitaine dina ak Sanderep euh, ñetteelu combat bi mooy ki nga xam ni kii mooy Sandengeleer ak Albouri euh, nga mooy saison bi nga mooy combat yi ak journée bi nga xam ne at bu nekk moom laay def. di ko delloo njukkal le président Macky Sall euh, euh, mooy diggante kéwél ak ki nga xam ni kii mooy ñàkk euh, jariñu ñaareelu combat bi Tahirou Sarr di suma doom di suma rakk di suma xarit ma di ko delloo njukkal ci combat ki nga xam ni kii mooy capitaine Dina ak Sandrep ñetteelu combat bi ci des nag nga xam ni mooy diggante Sandengler ak Albury kooku nag dama ci bëgg a delloo njukkal rendre hommage ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr bi nga xam ne def na exploit moom ak équipe am ak sénégalais ak sénégalaises yi ci pandémie bi bi mu amee ba léegi diirub ñaari at taxawaay bu rafet bi nga xam ne moom la ci taxaw moom laa ko bëgg a sargale bu soobee yàlla. d'accord 12 novembre soriwul est-ce que na fi. waaw du non décembre laa jël. Ah, pas novembre 12 décembre laa jël. donc 12 décembre incha allah bu àndee ak dogal yàlla promotion bi ma ci bëgg incha allah dinaa ko am bu àndee ak dogal yàlla incha allah. pandémie pandémie bi mi ngi fi euh, yan matuwaay ngay jël la waaw bu ko yàlla suñu borom dogalee li nga xam ni moom laay ñaan yàlla le 12 décembre damay ñaan yàlla zéro li may ñaan yàlla 12 décembre bu àndeek dogal yàlla seroka cas coronavirus mooy am Sénégal bu àndeek dogal yàlla bu yàlla dogalee ay cas des fi lu mu tuut tuut. dinañ jël matukaay yi nga xam ni moom la docteur yi santaane ak CNG de lutte pour arène nationale lépp loo xam ne rek gouvernement Sénégal euh, jël na ay dogal ci CNG bi nga xam ni moom mooy démembrement wu l'État euh, fas nañ ko yéene jëfi bu àndeek dogal yàlla ci wàllu masque ci wàllu jàppale yi nga xam ne ñooy dugg bu àndeek dogal yàlla parce que man combat yi may tëgg yëpp damay assurer amateurs yi assurer militaires yi ci biir sur journée bi même seen journalistes yi loolu musuma ko wax mais incha allah le 12 décembre képp koo xam ne dugg nga ci stade bi maa ngi ñaan yàlla suñu borom ñu dugg ci ak jàmm génn ak mais képp ku fi dugg dinañ la assuré bu àndee dogal yàlla. par nga xam ne ñu jëm nga ne jox moom foofu date waaw loolu xam nga Pape Thialis sama doom la sama rakk la Pape Thialis maa ko dugal ci làmb. Euh, Euh, am na ñoo xam ni dañuy nekk ci biti ci rajo yi ak journaliste yi ak télévision yi di wax te fekk régulariser wuñu dara xam nga régulariser grand combat bokkul ak régulariser sa journée man damaa régulariser grand combat ba dernier combat. li sart yi nga xam ni moom la CNG bi tëral ne ku ko tëral lii moom la ci war sart yëpp matal naa ko soo xoolee te ñetti loo fi am dañu ni juróom mbenn nit yi régulariser woon euh, man ci laa bokk. ñu ne ñi nga xam ne grand combat rek lañ régularisé woon wutal nañ leen benn porox ndollu ñi nga xam nag dañoo mébétan te régularisé wuñu amuñu da dañoo mébétan rek ñëw seen seen bëgg naa tëgg combat diw ak diw ñooñu ñoom bu ñëpp pare ñoom ñooy jël gis nga tey bi dëgg dikkee ñi régularisé woon fer def lépp juróom-benn nit dong la ak li nga dégg coow li bari li six personnes képp li nga dégg ñu wax ci rajo yeeg télé yi juróom-benn nit dong ñoo régularisé woon ci yoon ba ca topp xëy na mat na fukk ak nangam ba ca toppaat ñooñu mooy ñi nga xam ne ñi dañoo amoon mébét donc bu bu taabal ji am na ñoo xam ne buñ ci toogee foog dégg feeñ parce que am na ci ñoo xam ne dañuy wax te wuñu dara. mais euh, combat bi day dem mais pass sanitaire lañ obligé nit ñi la ñu maanaam ku ñëw da ngay ba pare est-ce que loolu du wàññi seen seen seen mobilisation. waaw xam nga loolu man du man maa koy dogal bu fekkente ni bii xam nga ne nit ñi na ñëw ñàkku kaay wér. ku ñu ko wax da nga war a sant yàlla mais daal bu ñu fi yàlla bàyyee le 12 décembre fas nañu yéene ñaan yàlla le 12 décembre dana fekk Sénégal ci zéro cas coronavirus bu àndeek dogal yàlla incha allah.